tëngërëm lañ leen di wax saa su nekk rek ñu safoo site internet di Sénégal bu leen fàtte di abonné di bës cloche de yi ngir dara bañ leen a raw ci seen i xibaar. dal leen ak jàmm mbokki internet yi safoo di seetaan bës MTV Sénégal di leen jaajëfal si ànd bi ngeen di ànd ak seen bi ñu daal di dikk si kàddu yi nga xam ne oustaz Maodo Faye daat na ko yëkkati ginnaaw coow li jamono bi. dinañ si ñëw waaye ki nga xam ne moo di Cheikh Tidiane ndaw imam bi le nag daat nay jéggalu lukki di président Ousmane Sonko gannaaw kàddu yi nga xam ne nag yëkkati woon na ko ba tax ñu arrêté ko ak lu man di xew moom mi daat nañ leen di jàllale moom ak ki nga xam ne moo di Bah Diakhaté kàddu yu ñaaw yi nga xam ne nag yëkkati nañ ko teg ko ci kawoon ministre bi di Ousmane Sonko ñu daal leen di dégtal ay kàddu yu ama am solo yoo xam ne nag oustaz Maodo Faye daat na koy yëkkati si mbir yooye nga xam ne xew na arrestation si Ahmed Tidiane Ndao bi de dama am fukk gaay jàpp waaye Tidiane bi mu yëgee ne gaay dañ koy wër mbooy gi la dugg <laughs> wallaay dèjà imaam bu tappale dëgg dëgg dëgg dëgg mooy imaam bii naan katu ataaya imaamu caaxaankat kii wallaahi mérite woon sax jolaan ko saas foofu ma de imaam parce que étiquette wu imaam du lu tuuti ci diine parce que koo xam ne nii la naam mboolem njabootu lislaam dañoo war a xam ne du ñu ay baahima dañu am ay dawaabit ay règlement yu leen tëgg yoo xam ne sariya moo naan ko nii nii lañ ko soxla ku ne da caa war a tënku ci njabootu lislaam bi rawatina nag en tant que imam te en tant que imam moom war naa xam maanaam sanction yu diis gann ak avertissement ak moytandikoo gi nga xam ne lislaam mi ngi koy ci xas nit xas nit nag mooy jël tuumay njaalo alaaka daal di ko teg ci kawam gis nga kooku noonu lislaam dani képp koo xam ne da nga koo def. te ba pare amul ci lenn lu ko firndeel nañu la caw dóori yoon boo noppeetee na nga xam ni maanaam lislaam daf laa considéré ab kàccoor na nga xam ni moytutoo seere ku doye di nga ci bëti islam alaakul xaal yàlla rëbb ci moytu ndikootuloo ci en tant que imam xam loolu lépp du sukkandiku ci bàjaxate du sukkandiku ci ay saar di jël tuuma yu toll di tuuma góor jigéen ak tëdde maanaam di ko teg ci deru bi loolu wallaahi la si du lu woyof ci l'islam gis nga man nit ki mën nga koo saaga sax te fekk na degré bi nga ko saaga agul siwut foofu parce que tooñ ay degré la moom am na ci loo xam ne bu leen ump yéen mën wartu ump imam bu umpee baa jaxati wartu ump imam bu doy bi nga xam ne moom la occupé ci diine bay dugg ci doy yu ñàkk fayda yu suufee jikko yoo xam ne sangari jikko sax war nañ ko mën a jomb kooku tey sëñ euh, kenn wër koo bàyyi mu dem alaakulaal kii dañoo war a dem yóbbu ko teg ci yoon loolu tax ba ma dégg ñoo naan imam dugg la mbooy gi làqutu ji bu fekkee kay moom ay propos yooyu muy tenir maanaam bokk na ci li mu gëm loolu war na ko jaral ba kanam saa muy dem di làqatu njëkk lu mu dox waaye de fii Sénégal la ala kul hal ku fi lu fi wax lu bay do wax nang ko wax ci lu leer nañ man d'accord la ko mu opposé Ousmane Sonko parce que mo la yobi ñu doxo mais ni ko opposé ci doxi lu mi mais di bëgg dugg ci yo xamni ci sax ci yam la ci personnel nit ki la lo xamni ne li ci ay touba la yo xamni nit lool dañ ko xéru sax ci ben opposé te lool man fi mu gis ni fi li gëna yaato moy ci taxawayu APR parce que Ousmane Sonko bo xoré ci débuta bi ñu débuté wu manam mom ci débat di ci la doon wo manam ñi nga xamni ñoo ñu la nekkon seen loxo nga xamni di plateau yi la def yépp yow da nga ko daan tok di ko teewlu xam ni kii dafay toj ci xam-xam di la convaincre ci argument yu leer nañu mais malheureusement wa APR ba ci ndewé dole ci la gis ñu commencé di maanaam dimbandikoo ñaar te moy duggu ci ëttu diini bi waye ëttu këru diini manam maanaam di di di ko ci seen combat politique naan diw salaf laag gëmul sul yoon weeg gëmul yoonu moy tek gëmul yoonu tijaan ak yu mën a mënta wax ci wa APR la ko njëkkee ci ñu ko ñuy wax loolu moomul wax leen ma deuxièmement biñu démé touti manam toubay di tek teg tuumay njaalu ci nit ala alaakul hal ñu ko njëkk gisee ci jamono aji saar la ca aju alaa kulaa diw daa jaalo diw daa tëddee dox nii loolu sëñ bi dafa salte loolu xaaraju ko ci citoyen bi sañ naa opposé parce que man damaa gëm ni amul kenn koo xam dañ laa war a bàyyi ci sa ci gul guy rek a def mooy opposant lay doxal réew nag yu mën a mun wax dugg ci personnel ki loolu muy looy ëpp loolu muy li jéggi dayoo loolu moom képp koo xam ne ko nekk di def nii ak koo mën a doon ak foo mën a bokk dañ laa war a teg ci yoon jàpp imam bi ni ma ci kontaane jàpp baajaxati ni ma ci kontaane parce que ñoom opposant yoo xam ne jàpp nañ ni daal maanaam bañ yore nguur gi yàq der wàññi ko du opposé bëgg di yàq der te ñoom ci waa APR képp laa koy gisee yàlla seere na ko wala bu ñu cëpp ci waa APR lañ bokk man nit ki mën nga koo affronter politiquement na yow wéeru ci daan ay gàtt di déglu njaaloo ni fekk ku tëddante naa kii yu mën mu tax mais loolu loolu dañ koo xaar ci sax maanaam kenn. pour war a mën a mi ak jagal mi kii ma la wax waaye nag gis nga na sa sedd gaa yi bëri gis bi barke alxuraan amuñu caaxaan <laughs> amuñu caaxaan de Sénégal daanañ ko réglé gis ngeen ni ñuy réglé maanaam caxat gi ñu caxat caxate alal réew mi suuf ko pare yooyu noonu la ñuy jikko yi euh, li nga wax la ci discours Sonko bi gis nga presse internationale bi man leen rencontre Mélenchon ñoom ban demee lañ bind mooy Sonko ngi gën a dëgëral di taxaw pour Afrique gën a nangu boppam gën a am seen souveraineté lu baree bare bari quatre-vingt-cinq pour cent yi wala quatre vingt dix pour cent yi ñoom loolu lañu bind gis nga baatu bii ngeen di wax ne homosexualité ak ay góor jigéen ak yooyu presse internationale bi après rencontre bi waxuñu ci sax luñ toppatoowuñ loolu Afrique mi ngi gën a kii Sonko mi ngi gën a déterminé wu Sonko mi ngi gën a taxaw pour Sénégal nanguwaat boppam am souveraineté am Afrique gën a gis seen bopp presse bi ñu bare bëri loolu la ñu wax. international bi laa wax de ñun kay kat xabaaru Sénégal yi kay la ngelaw lu yóbbu ñuy wax waxi dof beneen bi ci tegu euh, gis nga Sonko def na discours ba discours ba pare soo déggee tubaab la laa wax waaye boo déggul tubaab ne man Lo neex man nga ko wax waaye am na loo xam ne lii ko lu bare bare bare bare bare gaa yi tegg ko fa wax na ci problème Palestine. ak Sénégal bi nga xam ne tey jii moo yore présidence bu kenn warta alga euh, jalkati ak jullit yi ñuy rey fële ci palastine loolu dañ ko ñu ngi ci taxaw te tamit luñ ci mën ñu ko def wax ci Palestine naqarlu ko Sénégal nekk président bi ci ñu koy xeexal jullit yu bàyyi fi lool de jullit yi bàyyi nañ fi loolu mu wax de ci ci Palestine raf ñi waxuñu waxuñu ci dara wax na yeneen yoo xam ne itam dafa jëm ci wàllu partenariat wax tamit ci wàllu koom ak ya ci aju waxuñu ci dara beneen bi ci tegu euh, Sonko tolérance boobu ñuy dégg ñuy wax pour nga xam ne tolérance bi dëgg la fekkal benn góor jigéen ci mbedd mi nga dóor ko wala nga rey ko yow yow mi ko def ci kaso bi nga jëm parce que république bi moo ko toléré du ne nit ñi ñoo ko toléré loolu président Macky Sall waxoon na ko nee na woon en tout cas ci pays bi yooyu du fi am duñ ko duñ ko duñ ko légiférer duñ ko def ci ayam Macky Sall nee na woon tànk mi ngi fi loolu du fi amee waaye nag ku nekk ca mbedd ma di wane sa bopp ci mbiru góor jigéen. mu ne kooku nag boo ko defee bon loolu yoon état bi nekku ci askan wi buñ la dóoree wala ñu damm la wala ñu fat la wala ñu def loolu yaa xam mais nag ka def loolu bu pare état bi day dal ci kawam ñee ñuy wax ca mbuur naan waaw toléré wuñ ko ban ko defee dañoo taal këram nangam ak nangam ñooñu fu mujj ci kaso bi lañ mujj di parce que république bi moom ci boppam ki nekk euh, euh, góor jigéen dérangé wu ko parce que république laïque bi nekk loolu tolérance bi foofu lañ ko war a defee lecture waaye waruñoo wax ne diw wala diw wala diw daf ko tolloore tolloore bi mooy le pays am na fi yàgg na fi ba léegi góor jigéen yaa ngi fi y' a pas de problème waaye nag li ñuy def baaxul waaye nag boo leen fekkee fi fetal leen wala nga dóor leen de yow mi ko def ci kaso bi nga jëm loolu tam nañ beneen bi ci dégg tamit gis nga man Sénégal daal man daal jaaxle naa xëy na ñun ñi nga xam ne suñu xam-xam bariwul boog li ñuy gisee dafa dafa doy que naka ngay mën a nekkee ci réew moo xam ne mii tolloore nañ fa ay nit ay nit. ñuy wër carte di jaay seen bopp ci mbedd yi waxuma sax toléré légaliser sax na amoon dañ leen wutal carte sani carte sanitaire pour ñuy jaay seen bopp loolu mu ngi ci réew mi di kenn waxu ci dara man nag jàpp naa ne man euh, bu am am réew moo xam ne mii mën nañ faa may carte nit ki muy jaay boppam réew mooma ku mën a muñ loolu yéesul wër biiru góor jigéen yi ñuy wax daanaka sàmbaay bàcc rek te pourtant gars yi waxuñu ci Sonko daal wax fi dara lu dul discours boo xam ne bu leer nañ ñi la set wecc ñu bëree baree bëri surtout waa réewu tugal yu kontaan ci salaamaaleykum